boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyi ko. ci jamono yi nga xamante ni jëfandikoo xarale yu yees yi ci sunu dëkkuwaay yi ñëpp ko yittewoo digital store si la ñëw ngir noppal leen marque yu mag yi ngeen bëgg ci wàllu électroménager ak ci wàllu informatique yépp mën ngeen ko fekk ci sunu showroom yi nekk ci Bourguiba ak ci Soumbédioune ci corniche bi digital store lépp lu ma la jaay am na garantie te tamit am na service après vente bu farlu ngir dab seen bànneex yéen sunu client clients yi digital store lépp lu mu leen jaay daf leen koy livré ba fa ngeen ko soxla te lii gën a neexati mooy bépp jënd bu ngeen fa jënd te mu mat ñaar fukki junni wala mu ëpp ko am na ay pexe ak sunu partenaires yi di banque atlantique wala Cofina ngir fay ko ci ay pàcc yu bari moo xam mooy congélateur réfrigérateur split ordinateur wala téléphone portable jaar leen rek seen ajo faju su leen neexee itam ngeen commandé en ligne ci www.digitalistore.sn ñu indi leen ko fi ngeen nekk digital store mi ngi ci réseaux sociaux yi mu ngi ci Facebook LinkedIn wala Instagram avec Digital Store améliorez votre quotidien. xoolal boroom kër gi buntam dafa naqare ubbi. soxna si moom caabeem dafa dëkk ci cang ci bunt bi ba faf dafa mujj damm ci bunt bi soo bañuy dund lu mel nii demal Touba Quincaillerie général loo soxla am na ko ay poignée de porte yu dëgër te rafet lool waaw waaw rafet lool sax ci design boo bëgg si qualité laiton wala inox am na fa ay serrure électronique am ouverture carte code wala empreinte digitale ay pommelle charnière ak bépp accessoire finition menuiserie ay kanu ak serrure de sécurité ci marque Touba Quincaillerie Générale caabi du dugg di cang ci bunt bi waay ay vachette ak brica ci qualité bu mucc ay te nangoo yàgg ay contreplaqué yu dëgër seet siñu di nga am ca Touba Quincaillerie général li nga bëgg ci qualité ba noppi méngoog jamono ci njëg yu xéewale ñun waa Touba Quincaillerie général fonk nañu suñu kàddu te qualité rek ci la ñuy dox Touba Quincaillerie général Kër Damel extension rond point 26 ca Parcelles Assainies Touba Quincaillerie Générale 65 5 rue Ngalonou Diouf Touba Quincaillerie Générale 84 rue Ngalonou Diouf Touba Quincaillerie Générale Mbour route nationale après croisement Sali Touba Quincaillerie nekk Touba 28 ci wetu jumaa ji Wakaam fii ci wetu Brioche Dorée bi TQG Touba Quincaillerie Générale. mbokk yi gannaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu julli ci bi Seyyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nañu yàlla boole jëggat dellu di ndokkeel jullit yépp ci jaamu yàlla gu mag yi nga xam ne ay fanam mat na yàlla nañu yàlla boole ca lim ba muy nangul te fekke loo waat nu ko ay at yu bari te saa bu ñëwee nu man ko yàlla jaarale ci jële fi lépp luy ak wéradi ak ñàkk ak deewu xol ñu xam ne nag fan yooya mat na waaye dundug jullit bi lépp ak jaamu yàlla la war a nekk loola day joxoñ bu suñu boroom joxoñoon foofu ca fan yooya waaye la rafeta njort ne yàlla mën na noo boole ca yi nangul lañ ca doon jànge nañ fexe ba buñ ko fëtt noonee ñu xañawoon suñu bopp ya nga xam ne ñoo ko moom yàlla daganal ko ci nun nu xañoon ko sunu bopp te yàlla tax na wéy noonee ñu demee woon suñuy gët ci xool lu ñu warta xool na wéy ba suñ cër yépp mat yàlla na nu yàlla jàppandaloon jaamu yàlla jullit bi nag kon amut waxtu wu mu koy yokk bu waxtu ko jàllee mu wàññi ko amut waxtu wu mu koy gën a fonk di bàyyi weneen ndax kat bu xa yàlla xasee ba digle yàlla moom ci boppam tënkuwut ci ay waxtu tënkuwut ci ay bis tënkuwut ci ay weer tënkuwut ci ay at tolloonaat nag ñun ñi ca tënku léeg-léeg mu joxoñ ñu fenn rek ne bu agsee góor góorlu leen moo xam lam ñu cay fay yàlla bu mu neen ñu xam ne jullit dëgg dëgg nag li ñu koy xàmmee yëmut rekk ci weeru koor wi mu woor ko sàmmoonteeg lam ca war a sàmmoonte ba weer wi jeex rek mu joxe fa jaax euh, doxe fa naax saay déedéet dundam gépp daa war a doon ci moom weeru koor ginnaaw fekk na ko wenn yoon ba woor ko waaye mbub mi ñu koy xàmmee it saa bu ñu ko xoolee doon ko gis ca koor ga dañ ko war a gis bu ñu waree it mu sol mbubb mu mel na moom soloon ci koor ga kenn du leen xàmmee kon jullit bi dëgg-dëgg dugg ci weeru koor mën naa tax mu yokk ay jaamu yàllaam ndax la ca yàlla dige waaye bokk yi lu nit tàggatu weer wu mat sëkk su weer wa jeexee munu ca dara mu yemale ko fa war naa xoolaat boppam yàlla na ci yàlla musal kon koor ga jeex na jàmm ay fanam waaye ay jeex itam dafa war a feeñ suñuy melokaan war a feeñ suñuy jëflante suñu borom mi nga wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa di ko wan am solog julli ba leeralal ko bu ñu demee ba fitna am ana nu ñuy jullee waaye ba muy jeexal euh, aaya ba daf ko ne bu julli jeexee it kat du tax seen jaan wàcc ay ca na làmmiñ wi tudd yàlla moo xam dangeen a toog wala dangeen taxaw wala da ngeen tëdd waaye yàlla yàlla moom bu mu dal bu mu jub ci seenu làmmiñ euh, mooy aaya bi muy wax ne wa ida kunta fihim fa aqamta lahum salaata jullik salaatul xawf fa ida qadaytum salaata fa adkuru llaha qiyaman wa quudan wa ala junubikum dellu waxaat lu ko niru lool ne jaamu yàlla yemut ci bis sàngam yemut ci weer sàngam waaye ba ba ba nit ki faatu la waabud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin moom la sëñ bu mag bi di leeral ci ab téere masalikul ginaan naan wa fassaru lafda alyaqini bilyaqin fi axiri alxijri bila mawtin yaqin am na ñuy naan lañ doon wut ci koor gi am nañ ko ñetti xaaj yañ ko xaajoon rafet nañu njort ñoom ci ne daje nañu ak loola kon war nañoo mën a noppalu déedéet sëriñ bi ne waabud rabbaka xataa yatiyaka yaqin mooy tekki wut deer jaamu yàlla ba mu wóor la na li nga doon def yàlla nangu na ko am nga la nga doon wut déedéet xataa yatiyaka yaqin mooy ba ba dee di dikk faagaagal la kon jaamu yàlla bokk yi moo ko dundub jullit bi ñooy ànd ku am xel ku nekk nag lu mu dugg ba génn ca war naa xool ba xam jekk na mu am ca dara wala amu ca dara ci suñu jamono danañuy gis léeg-léeg ci ci liggéeyu nit ñi ñu toog ba yàgg ñu xool nangami weer yi ñu weesu lañ jëmbatoon meññ na ñor na ana lu si juddoo ñu xam ba xam dañuy dolleewaat wala dañuy wàññiwaat kon boo ku jóge si jaamu yàlla gu ñuy toll na muy xame ne yàlla mën na ko nangu loolu njàngale mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bu fekkee xool na boppam gën a sawar ci jaamu yàlla xool na boppam gën a sawar ci mbooleem taxawaay yam doon taxaw ci koor gi ci dimbalee ci seeti mbokk ci jaala ji dem ca armelia bañ a tàng xam lu kenn ku naan dama yittewoo nangam ak lu ñuy ci jamono toll mu jaral ko jug su fekkee gën naa taxawe yooye mën naa rafet njortu ci ne moom kat la doon def jag na ndax cëram ya tàmm nañ ko ba jaxasoon ak deretam kon bu ñu ko bëggee tënk mooy nit di xame ne lam doon def jag na wala jagut su gënee sawar ci jaamu yàlla su gënee sawar ci saa bu ñu nee suba bisub koor la ku ku mën na ko woor mu fas ko yéenee woor te woor ci lépp lu yàlla tere te woor ci lépp lu yàlla tere ci ay déglu ko xool ko dox jëm ca laal ko wala dugal ko ci gémmiñam mu war a dem ci biiram jaxasoog yaramam kon yàlla na ko yàlla nangu sëriñ bu mag bi tënk ko ci yenti bayit waabud rabbaka xatta yaatiyaka al yaqin nit du wàcc ba ba muy faatu ku faatu moom ñu tudde ko ci waxinu jamono ji léegi te di ko teggi na naan wàcc na liggéey wax nañ dëgg waaye lam doon liggéey yàlla fekk mu la yàlla santaane woon rek su boobaa day tàmbalee gi su añam waaye su fekkee lam doon liggéey la ca ëpp am xelam daal la jiitaloon wàcc na liggéey ciy caaxaan yal ci yàlla musal wa amil al awqaata binnawaafili baad al faraidi bila tagaafuli sëñ bu mag bi def ne boo defee farata ba noppi jaamu yàlla gu nekk am na naafilaam bu la ca genn raw koor naafilaam mooy koor toog ba mu neex la ba mu soob la nga fas yéene woor ñaari fan wala woor benn fan wala daal woor ba mu soob la ba mu des bisub Korite gi ak bisub Tabaski rek mooy naafilab koor wa hakada bi sawmi wal awraadi wa dikri wal fikrati fi tamaadi naka noonu it tudd naa koor léegi koo xam ne daa sasoo bis bu mu jàng nangami xisibi alquran su demee foo xam ne ab kaamil jékku jékkuwu ko fa te mukkul alxuraan ba man koo tari nay tudd yàlla mooy wërd tudd yàlla nag bari na ay melokaan waxuñu nag dara say nopp di xaacu yàlla mi ngi koy mi ngay tudd boo ko déyee it ak bala nga koo déy sax dana ko dégg di ko ko am na mag moom laa joon muñ xam ne ko ci loo ne mu ne ko maa nga ca la ma dégloon mu ne ka ca des mu ne ko maa ngi déglu ndigal rek loo ma wax ma def ko ba mu noppee toog di dégluwaat mu ne ko yéen wuti na ma ak yéen fu ma nekk man de damay xëy ci farata yi di gontu ci sunna yi di dallu ci man du baateeg mustahabaat kon kooku bis waxtoom amu ca lenn luy neen ku koy xoolit fu mu tegu tànkan boo fu mu teg sa tànk it mépp fa bañ xam ne mépp nga fa wa bi tasadduqin wa jadbil maali ila dawi lxaaji li wajhi lwaali dëkke saraxe ji ma doon duñ gi léegi ci koor gi awma lu ma ndogoo awma lu ma xadde ku ko tàmmoon ci koor gi na xam ne koor gi jàll na waaye ñi ko doon soxla ba fi ni am na ci ñu ko gën a soxla tey euh, yàlla rek tax la siyama fadilatu l ayaami maa al aqaaribi wa bil idaami rawati lu mel ne yenn yenn fan yi nga xam ne ñenn ñi dañ fay dañ cay soxla ay teraanga te mënuñ ko seen loxo jot na seen gannaaw ñu fexe fexe ba ku ci bëtam xonq wala bët balaa bëta xonq boo ko xamee nga dimbale ko ca sëriñ bi nee na ci yenti bayit yooyu noonu la ab jurit di dunde wa amili l awqaata binnawaafili bada alfaraidi bila taxaafuli wa hakada bisawmi wal awraadi wa dikri wal fikrati fi tamaadi wa bitasadduqin wa jadbi lmaali ila dawi lxaaji li wajhi lwaali laa siyama faadilatu l ayaami maa al aqaaribi wa bil aadaami li ma ne amutoon jot xëy ci farata gontu ci sunna dallu ci mustaxab ak mun man duub bind na ko ci ay mbindam yu bari waaye dama cee jël buñ miin am na téeréem bu ñuy daaj tudde ko mawaahibu naafia fi madaixi shaafia ku ko jàng da ca fekk salaatu sitta bi madxi sitta taatihi batta maa tisaai at mi juróom-benn weer la juróom-benn weer yii daf ci tagg yonent bi tagg yonent bi mooy wane ko rek ndax soo ne am naa nangam nangam nangam nangam nangam mel ne da nga ëppale nit ñi ñu ne la foo ko jëlee boo joxoñee kañ ko jëlee ñu bari dana wuti ko juróom-benn weer yi muy julli ci yonent bi bi de tagg yonent bi di ko wane bi de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yàlla diglee inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima boole kook nag fuñ ne ma fa tegoon tànkam ma jéem faa mépp sama tànk salaatu sitta bi mati sitta taatihi batta maa tisaayi waxuñu bëgg kese kese wala sopp kese kese ba buñ ko tuddee nga jël satala gu tàng naan ko wala nga jaar ci ay xal waaye nañuy xame ne bëgg nga ko mooy fa mu tegoon tànkam da nga fay jéem a teg sa tànk ndax kat ñàkk koo fekk jamono téewu ko mën a roy diggante yonent bi ak sëñ bi moo gën a sori fuuf suñu diggante ak sëriñ bi ci ay at waaye sahabatu rasul alayhim ridwanullahi taala alayhim wa sallallahu alayhi wa sallam eh, bu jóge ci weeru koor wala ci xaj makka ay jooy lañ koy gunge aj gi yonent bi mas a fekkee wala aj ajug yonent bi bokk bala ñoo taawi samay wax euh, ñu bari dañ doon jooy soxna Aysa ne ko li ñuy jooy lu mu doon damaa gis ñu génn ci kor gi di jooy génn ci aj gi di jooy ñii di jooy mag ñu toll na ñoom mbaadu dañoo def loo xam ne lii dañ ciy teg seen diggante seen borom ñu ne ko déedéet yonent bi du la tontu ñoo lay tontu yàlla mi ngi wax ci alquran suratul muminuun wallazina yutuuna ma aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun am na ñu def la war a def ne leen ko yàlla digale seen kem kattan waaye gunge dañ koy gunge ak jooy mooy dañuy ñaaw njort bu dee weeru koor la xamuñ dana dellu si waat fekk leen fem te xamuñ yàlla nangu na ko walla déet su dee xaj makka dim waxoon ne ci koor daa waxoon ne as-sawmu as-siyaamu lii wa ana ajzi bi wax ca aj makka ne alxajjul mabruur laysa lahu jaza illa aljanna xamuñu nangu na wala nangu wut te xamuñ danañ ko fekk waatam déet moo tax ay ay jooy lañ koy gunge kon bu kenn naagu lu waay def lu mu bari bari ba nit ñi di ko ko waxalit bu mu tax mu jàpp ne day dem rek tàllal yàlla fay yàlla moom daa mën a segg bokk na ci ay melokaanam xasiib xasiib mooy ko xam ne dara dara du ko raw lu mu sew sew lu mu liggéey du la ca nax waaye kenn munta a muusit ba nax ko lu sew sew yàlla na nu yàlla dimbali ba saa bu joxoñee rek ñu mën faa jëm te bu ñu fa jëmee it yàlla bu ñu ci gis suñu bopp te yàlla bu seytaan yebal kenn mënuñu ko jéem a ñi ko fekkee wutoon daaw yàlla na leen yàlla yaram ñun ñoo ko fekkee ren yàlla nu ñu yàlla dimbale bañ fekk ko déwén yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina xoolal boroom kër gi buntam dafa naqare ubbi soxna si moom caabeem dafa dëkk ci cang ci bunt bi ba faf dafa mujj damm ci bunt bi soo bañuy dund lu mel nii demal Touba Quincaillerie général loo soxla am na ko ay poignée de porte yu dëgër te rafet lool waaw waaw rafet lool sax ci design boo bëgg si qualité laiton wala inox am na fa ay serrure électronique am ouverture carte code wala empreinte digitale ay pommelle charnière ak bépp accessoire finition menuiserie ay canaux ak serrure de sécurité ci marque Touba Quincaillerie Générale caabi du dugg di cang ci bunt bi waay ay vachette ak brica ci qualité bu mucc ay te nangoo yàgg ay contreplaqué yu dëgër seet si ñu di nga am ca Touba Quincaillerie général li nga bëgg ci qualité ba noppi méngoog jamono ci njëg yu xéewale ñun waa Touba Quincaillerie Générale fonk nañu suñu kàddu te qualité rek ci la ñuy dox Touba Quincaillerie Générale kër Damel extension rond-point 26 ca Parcelles Assainies Touba Quincaillerie Générale 65 rue Ngalano Diouf Touba Quincaillerie Générale 84 rue Ngalano Diouf Touba Quincaillerie Générale Mbour route nationale après croisement Sali Touba Quincaillerie Générale nekk Touba 28 ci wetu jumaa ji Wakaam fii ci wetu brioche dorée bi TQG Touba Quincaillerie Générale ci jamono yi nga xamante ne jëfandikoo xarale yu yees yi ci sunu dëkkuwaay yi ñëpp ko yittoo digital store si la ñëw ngir noppal leen marque yu mag yi ngeen bëgg ci wàllu électroménager ak ci wàllu informatique yépp mën ngeen ko fekk ci sunu showroom yi nekk ci ba ak ci Soumbédioune ci corniche bi digital store lépp lu ma la jaay am na garantie te tamit am na service après vente bu farlu ngir dab seen bànneex yéen sunu clients yi digital store lépp lu mu leen jaay daf leen koy livrer ba fa ngeen ko soxla gën a neexati mooy bépp jënd bu ngeen fa jënd te mu mat ñaar fukki junni wala mu ëpp ko am na ay pexe ak sunu partenaires yi di banque atlantique wala Cofina ngir fay ko ci ay pàcc yu bari moo xam mooy congélateur réfrigérateur split ordinateur wala téléphone portable jaar leen rek seen aajo faju su leen neexee itam geen commandé en ligne ci www.digitalistore.sn ñu indi leen ko fi ngeen nekk Digital Store mi ngi ci réseau sociaux yi mu ngi ci Facebook LinkedIn wala Instagram avec Digital Store améliorez votre quotidien. boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bës fu ñu bind abonné bu leen fàttee bës fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyeekoo.